baar gi ndondol samp na nañu seen xeer bu njëkk bu seen poste de santé bilee ñoom ñi le sax dëkk ba yépp ñoom ñoo dajaloo xam ne lii kat lu war dëkk ba la bay sukkandikoo ci Mamadou lii ndax baar noonu daa nekk commune Ngoy mais sori poste de santé yi fii nekk ci commune bi comme fu mel ni Battal ak fu mel ni Ngoy da ngay def 10 kilomètres pour nga accéder foofu bu ko defee élèves yi nekk ci école primaire bi ñu takku élèves yi nekk ci collège bi commencé ren ak jigéen ñi nga xamante ne dañu nekk ci ëmb ak jigéen ñi nga xamante euh, di wasin dañu am ay problème pour ñu defal leen prise en charge loo tax population bi manko takku ànd ne dañuy fexe def sur place un poste de santé boo xam ne dañ ci njëkk a def suñu alal bu paree nag ñu woo autorité yi ndax dañuy xalaat ne ndimbal na ci fekk loxol borom. li lee tax ñu bëgg a samp seen poste de santé. poste de bi li muy njëkk a résoudre mooy problème mu évacuation parce que xam nañ ne euh, fii ak yoon bi baaxul mais bu nawet jotee yoon bi kenn mënu cee ne mënu mënu ci jaar bu ko defee nag jigéen ñam te dañuy wasin mbaa jigéen ñam dañu nekk en état de bu ñuy dem baam bi dem ay jafe-jafe saa yi jigéen ñoom te dañuy wasin ci yoon bi ci condition yoo xamante ni dafay difficile kon nag bu ñu amee poste santé mu ànd ak maternité dina permettre ñu am maternité bu jege boo xamante ne jigéen ju tollooti foofu ñu mën a defal prise en charge beneen bi ci topp mooy école bi bari na ay ay élèves collège bari na ay élèves te bu fa crise amee mbaa problème mu santé am dañ am jafe-jafe pour évacuer leen ñooñ aussi dinañ mën a am prise en charge ci xale yooyu ci lu gaaw a gaaw a gaaw ba ci topp mooy mag ñi nga xamante ne yenn saa yi dañuy bari ay feebar parce que mag rek déjà feebar la boobaa prise en charge aussi dina mën a doon lu gën a gaaw. wàllam yoon ma nag ki nga xam ne moom moo di adjoint maire ba ko fa teewaloon moom day wax na ci. def loolu yàggatul bu soobee yàlla eh, yoon boobu daal di taxaw. ndaxte Barry ku ne xam na ne sore na te it wax dëgg yàlla monsieur li sama prédécesseur wax na ko bu xasee ba taw rek ay jafe-jafe ngay am pour rejoindre jóge Barry dem Bambey may santaat aussi maire di wax ne waa Bargny aussi dañoo war a profité ci li def moo di ne dafa mettre sur place une ambulance boo xam ne nii woote wootee rek su fekkee jigéen boo xam ne nii da war a wasin lak yooyu boo wootee rek doo fay dara dañ lay jël si sa kër yóbbu la ba ci centre de santé bi wala poste de santé bi te doo ci fay dara bo la yàlla mucculoo mu indiwaat la ci jam ak salaam kooku moom maire moo ko fi def feekuwul kenn. mag ndaw góor ak jigéen waa Bargny Ndondol takku nekk benn say ngir nag jàppale dëkk ba ci ab poste de santé. ba nga xam ne ku fa feebar di nga mën a faju te doo am benn jafe-jafe leen nag nekkaat leen liggéey boo xam ne ki nga xam ne moo di chef de village bu bees ba di Thierno Sow sumb na ko fa ginnaaw nag ba mu taxawalee ay lémpo samp marché moom day mu nga sa gu yaram baax